chers internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax dal leen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen ci xibaar yi tey li gën a fës euh, tey nag yemook fukk fan ak ñaar ci weerum août atum 2024 ñu doole ko nag ak euh, convocation yaayu euh, Mariam fay Sall mi nga xam ne nag nekkoon na fi première dame moom nag yaayam du Oumou jàlloo waa section de recherche bu gendarmerie nag daal di koy convoqué lu ñeel rek wàllum coowal suuf boo xam ne nag tudd nañ ko ca euh, loolee nag mooy lu xët yëglekaay yu bëri daal di euh, xëy euh, fësal ñu ne nag bi convocation nag soo dina def daal ay préoccupation ci li nga xam ne nag moo di njabootam ba tax na sax moom sax dañoo jàpp ne yaram moom dafa daal di sutante moom yaayu Mariam fay Sall mile waaye nag ay xibaar di xam ne ni waa section de recherche ci boppam dañu ko fas yéene nag jox ay matu jumtukaay ngir kon mu mën a ñëw euh, teew euh, ci euh, loole nag moo ñeel convocation biñ ko daal di jéggal biñ ko daal di jox kon ñu jàpp ne nag duñu daal di def benn exception ngir nag daal di wàcc règlement yi nga xamante ni kon daal teg nañ ko ci leneen nag loo xam ne kon mënees nañu ko jàpp mooy convocation yaayu Marième fay Sall bile ñi ngi ko daal di def nag ak Adama fay Euh, ñoom moom itam ñu daal di ko ci euh, lim ci coowal euh, foncière bile loolu nag mooy li nga xamante ni kon daal nay fës. leneen ci wàllum xibaar ñu àddu kon wax ci gaal gi nga xamante ni nii dafa yeboon deux cent cinquante candidats yoo xamante nag bëggoon nañu dem Barça mbaa Barsak ñu daal di leen teg loxo fi nga xam ne moo di Sokone nekkee nag ca région bu Fatick ñoom nag daal ñu daal di leen teg loxo gannaaw ab tentative d'immigration particulière bañ doon def euh, euh, ñoom euh, ndaw yooyee jamono ji nag ñi nga xam ne ñoo di autorité yi daal def interpellation lu jëm ci passager yi ngir nag ñu daal di bañ a jóge ci waax yu Sénégal ba tey nag ay xibaar dañu xam ne nii bile incident mi ngi rek daal di fexe ba leeral lu jëm nag ci défi yi nga xamante ne nii boobaak tey nag ñu ngi koy daal di amal mu jëm rekk ci xeex wàllum immigration clandestine foofe ca région bu Fatick wàllum xibaar ba tey ci uh, jiye bi nga xamante ni itam moo am ca Ziguinchor rawatina ca quartier bu Gumel uh, foofee nag uh, kile di Amadou Korea ab commerçant la ñu daal di fekk nag mu daal di faatu waaye nag ci anam yu doy ndax nag moom dañu ko fekk mu pendre boppam ci néegam loolee nag mooy li nga xamante ni daal fësal nañu ko ñu ne nag kii ñu fekk nag mu daal di ñàkk bakkanam amul woon benn signe boo xam ni moo nag laale ak lu jëm ci wàllum trouble psychique euh, mbaa sax euh, digganteem ak nag euh, ay woy dëkkandoom ba tax nag kon moom daal jamono ci njabootam nag dañoo daal di amee njàqare ak choc gannaaw ba ñu gisee mu daal di faatu lu jëm nag ci daal néew ba rawale nañ ko ca hôpital ngir kon xool lu jëm nag ci lu wàllum autopsie li nga xamante nag moo ca war a daal di tukkee gannaaw ci noonu itam ubbi nañu nag ab enquête nag mën a euh, daal di xam yeneen ci ay information yoo xamante nag dañooñ ko am cëm euh, ci euh, faatoom ñu daal di wax nag ci kon daal ab journée sans presse bi nga xam ni dinañ ko amal nag ëllëg euh, loolee nag euh, daal waa euh, ñi nga xamante nag CDEPS di ñi nga xamante nag ñoo regroupé patron de presse yu Sénégal ñoo ko daal di xamle gannaaw ab bataaxal boo xam ni kon daal fësal nañu ko tey sax jéglekaay yu bëri daal di def ab édito commun boo xamante nag dafa jëm ci lu ñu jàpp ne nag ña ngay rey lu jëm ci média Euh, sénégalais euh, ba tax nag euh, kon daal jàppale ne ëllëg lu jëm ci wàllum tasub xabaar nag dana daal di noppi ngir nag ñaawlu yu jëm ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkuwanteel waaye lu jëm ci wàllum pression fiscale ba ci tam teg loxo yi nga xamante ñu ngi koy def yenn ci ay compte bancaire ba ci itam yeneen ak yeneen yoo xam ni daanaka nag lu jëm ci jafe-jafe yi métti na ci patron de presse yi ba yegg ci lool ba tax nag dàkkuñu itam yeneen ci ay plan yoo xamante nag dinañ ci daal di dem ngir nag euh, wone seen euh, euh, métit mbaa sax seen ñàkk jàppale jëm ci lu ñeel nag média yu Sénégal mi nga xam ne nag jamono ci mi ngi ci ay jafe-jafe yu métti métti yi mbokk yi fi lañ yem ak yéen ci tënkum xibaar yi tey li gënoon fës ñaar fukki fan wala sax fukki fan ak ñaar ci weerum août atum 2024 jox dig daje ëllëg ci yeneen xibaar laata loolu bu leen fàtte benn yoon abonné wu suñu chaîne di ci réew mi TV bu ko defee ngeen bañ ute dara ak nag lu ñeel euh, li nga xamante nag moo jëm suñu ay programme euh, woy leen di euh, safoo ak suñu chaîne ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf Touba Khayra Touba Khayra yéen ñi dëkkee jaaxle ngir am ay meubles yu baax te ànd ak qualité enfin la solution ñëw na ak menuiserie tapisserie Touba lépp loo leen soxla ci wàllu meuble ci seeni salon ak ay fauteuil de qualité exceptionnelle chambre à coucher wala nga bëgg réfection maanaam dafa defaraat ba mu yànj lool bul am jaaxle dawal gaaw chez Touba Xayra tapisserie menuiserie yi yemul foofu de ñi bëgg seeni coussin auto ànd ak jamono ak qualité Touba Xayra moo si mën loolee lépp mbokk yi ci ay prix maanaam njëg yu exceptionnel jàppandi lool jàpp leen adresse bi ñoo nga ca Géejawaay fa pare ak tournal Serigne Assane Fall ak ca Kër Massar cité ko ay ndaw yu sawar dynamique te mën la ñuy def ñoo fa nekk mën nga également aussi def sa commande ci lépp loo bëgg ci wàllu meuble loolee ci 77 498 72 72 77 713 94 57 wala ci 76 490 72 12 ak menuiserie tapisserie Touba Xayra njàmbatu ci wàllu meuble jeex na tàkk. Touba Khayra Touba Khayra yéen ñi dëkkee jaaxle ngir am ay meubles yu baax te ànd ak qualité enfin la solution ñëw na ak menuiserie tapisserie Touba Xayra lépp loo leen soxla ci wàllu meuble ci seeni salon ak ay fauteuil de qualité exceptionnelle chambre à coucher wala nga bëgg réfection maanaam dafa defaraat ba mu yànj lool bul am jaaxle dawal gaaw chez Touba Xayra tapisserie menuiserie yemul foofu de ñi bëgg seeni coussin oto ànd ak jamono ak qualité Touba Xayra moo si mën lépp mbokk yi ci ay prix maanaam njëg yu exceptionnel jàppandi lool jàpp leen adresse bi ñoo nga ca Géejawaay fa pare ak tournal Serigne Assane Fall ak ca Kër Massar cité Safko ay ndaw yu sawar dynamique te mën la ñuy def ñoo fa nekk mën nga également aussi def sa commande ci lépp loo bëgg ci wàllu meuble loolee ci 77 498 72 72 77 713 94 57 wala ci 76 490 72 12 ak menuiserie tapisserie Touba Xayra njàmbatu ci wàllu meuble jeex na takk